yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa aleykum wa wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di siyaare suñu kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw te kàddu yi ñu yëkkati ñu koy yëkkati ci seen ndigal di ñaan tamit suñ kilifa yi nga xamante ne jataay bii ci seen ndigal lañ koy defee yàgg yàlla yàggal leen fi te yokk seenu taxawaay ba li ñu yéene liggéey ci njaboot gi yéene ko liggéey ci diine yi yàlla may leen ñu àggale ko seen jot comme ni ñu ko waxee ci njalbeen rek tey ñu sant mbokk mi nga xamante ne moom la dalal fi jataay bi tey ndax xam nañ xataa yu jamono ji surtout sax ku mel ne moom ak période bi nga xamante ne moom lañ toll ñuy waajal màggal Tuuba di waajal tamit ubbital école te moom ay taxawaay yoo xamante ne taxawaay yu am solo yoo xamante ne moom am na ku ci xew-xew yooyu nga xamante ne mooy dégmal si kon mooy koo xamante ne ak jotam néew na lool waaye nag di jot gi néew néew biñ ko waxee bis bii nii dafa bàyyi te yëpp euh, ànd ceeg ñun defal ci ak jàpp nal kon ñu ñaan yàlla fayal ñu ko gën jàng koy fay muy sëriñ Fallou Boussa sëriñ Fallou Boussa Alxasan euh, dëkk fii ci Touba bokk ñun tamit géewu xam-xam yi nga xamante ne ñun ñëpp ci lañuy bokk di yëngatu kon moom la dalal fi jataay bi tey incha allah mu fas yéene ànd ak ñun ci euh, waxtaan wu am solo wu mat a bàyyi xel muy lu jëm ci wàllu ndigal jëfe ndigal ak bàyyi tere te muy loo xamante ne suñu borom ci boppam moo ñu ko sant kon muy tomb boo xamante ne tomb bu mat a bàyyi xel la tomb bu mat a waxtaane la rawatina ci jamono ji nga xamante ne moom lañ toll nga xam ne njaxas bi bari na liy fëkkaate bari na lii oriente nit ñi jëmee leen ci feneen fudu fa nga xamante ne fa la seen tex ak tey la nekk bari na kon nit ki war naa xam fan lay teg tànkam loolu nag kon war nañ ko bàyyi xel war koo dégloo xel xam naa bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf rek ci ay yëngutoom doyoon na sëkk rek ñu wax ne fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek foog nañu ko jaarale muy jàngal ko alxuraanul karim jàngal ko xam-xamu sharia jàngal ko xam-xamu àdduna loolu lépp nag mi ngi ko defee ci diggante Touba ak Gade ci digg ci biir mu jàng alxuraan ci Gade jàng xam tamit ci Gade ak Touba borom xam yi nga xamante ne ñoo gën a ràññiku foofu ci Touba ñi ëpp ci ñoom fréquenté na leen kenn ku nekk mu tànq ci oslam waaye nag yemul ci loolu euh, daara ji nga xamante ne moom la Serigne Mourtada sos muy institut Al Azhar jaar na foofu tamit jàng fa ginnaaw bi tamit jóge na fii ci biir réew mi dem fële ca Libye ci université yi nekk foofu noonu jànge foofa ba am licence ci wàllu falsafa euh, bi mu gisee tamit wàllu boobu rek ci la nekk yëngu muy di jàng ak jàngale muy jàngale ci Euh, lycée yi nga xamante ne moo nekk Sénégal kon professeur la ci lycée yi waaye nag en même temps moo nekk directeur institut Al Azhar yi nga xamante ne moom la ñu si Serigne Mbacké Bousso fii ci Kaaru Daaru Muxti kon moom jàpp naa ne lii nga xamante ne tey moom lañ ko jox moom ak yëngam lépp génn ko kon yaakaar naa ne war na cee mën a wax kon rek li ñu def moom mooy dañ koy jëf kàddu bi ci tomb bu am solo bii nga xamante ne incha allah moom la ñu fas yéenee baaxe tey yal na ko yàlla defal tax defal ñu ko asalaamaaleykum. bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki ji ji fi teew mbokki taalibe yi ñoo ngi yëkkati suñu kàddu muy kàddu yu nuyoo ak cant jëmale ko ci mbooleem ñi nga xam ñoo teew jotaay bi nuyoo bi ak cant gi ñu jiital ci alxalifatul aam lil muridin Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi di ndokkeel ko ndokkeel yi ci bis bu rëy bi nga xam ci lañ génn dem di ma ubbite jumaay Masaalikul Jinaan nuyu ak cant yi nag ñu teg ko ci loxol sëriñ Moustapha mi nga xam ne ni mooy kilifa barab bi mu tegal ñu ko ci loxol sëriñ Abbas mi nga xam mooy xalifa borom daaru ba mu àgg si Cheikh ak mboolem njabootu sëriñ Jumaay di nuyu sëriñ Kara mi nga xam ne sëkkal jataay bi ak suñu Fallou ak suñu Moustapha Ndiaye di leen nuyu di leen tatagal ñoom tam ñi nga xam ñoo ne ci daayira bi te taxawal bis bu mel nii di ñaan tam boroom borom ci barke bis bi tax ñu daje ak ki ñu daje sunu suñu borom defal tawféex xeetu jullit yi fu ñu mën a nekk ci àddina àdduna defal tawféex xeetu umma islamiya nga xam ne ni mi ngi jànkonteeg lu baree bari ñu ngi koy xuri ci barab yu baree bari léegi nag àgg nañ ci fekk leen ci seen biir kër di leen fa doyal di leen fa bund xataal bu njëkkoon da nga daan dem ci réew moo xam ne ni réewu jullit ñu la fay tuum rànkeel di la fa xatal ba doo fa mën a dund sa diine ni ko bëggee waaye léegi nag da ngay ne sa biir réew sa biirum réew xay na néew doole gu ne ci biir wala doyadi gu ne ci suñu biir tax ñeneen ñëw di way tuum rànkeel fekk ñu suñu biiru dëkk fa séenee dox sunu diggante ak nuñ mën a dundee suñu diine ak sunu valeur ak sunu cëslaay yi nga xam ne nii moom lañ suñu diine sant mooy suñuy aada suñuy cosaan ñu bëgg ñu imposé beneen façon dundin boo xam ne nii dëppoowut ak sunu diine loolu nag jullit bu nekk war a xool xam ne am nga ci responsabilité nga nag ko assumé ba mat sëkk xool li la ci war nga def ko ca ngir mbir moomu mën a soppi ko te ñu xam ne discours bu neex du ko defar maanaam giñaate bu war du ko defar waaye taxawaay yu mat sëkk ak fulla ak fayda mooy tax loolu mën a soñ bokk na ci yi nga xam ne nii nag ñu ngi koy bëgg a xañ te mooy dégg ak topp walla boog nangoo déglu ndigal ak nang koo jëfe déglu ndigal ak nangoo topp ndigal nag ku nekk xam na ne woote boo man di gis ci àdduna bu àggee fenn nangoo dégg ndigal ak topp ndigal moo tax woote ba mën a àgg fa mu àgg kon ñoom foofu ñu ngi ciy liggéey liggéey ma sëkk fexe ba dañuy sikki sàkkaloo ci ndax jëfe ndigal amati na njariñ wala amatiwul njariñ du ñu jéem a nax gannaaw buñ gisee ne ñun nangu nañ ko nu nax ñu ñuy jéem a nax ci ay déggiin yu bees yoo xam ne boo ko déggee day neex lool ci dégg waaye lim làmb ci biir posan day mel ne lem koo xam ne ni dañ koo posan léeg-léegi ñu wax leen ne la jamono ji toll jamonoy leer maanaam lëndëm jógee na fi leer ñëw kon jamonoy leer wax leen ne la jamono leer nag ndigal amu fa place wala ñu bëgg laa gëmloo ne la jamono ji jamonoy xel la xel a koy doxal waaye topp rek du ko doxal lu nekk da nga caa war a jëfandikoo sa xel wala sax ñu ne la yow sa bopp intellectuel nga te intellectuel nag mooy koo xam ne nii moom xelam dong la war a jëfandikoo waaye warta jëfandikoo leneen lu dul xelam yooyu yëpp nag di ay déggin yoo xam ne nii day neex ci dégg te fekk na lim làmb ci biir mooy fexe ba ndigal dootuñ ko nangu jëfe ndax ku nekk xam na ne topp ndigal léeg-léeg yi du laaj nga jëfandikoo sa xel léeg-léeg bu laaj nga jëfandikoo sax maanaam sa wàllum culture ak sa yooyu fi nga doon sa wàllu mentalité waaye da ngay bàyyi lu lépp fële nangoo jë gëm ne lii moom laa war a def moom lañ ma digal te moom laa war a def bañ caa càmbar doo ci dugal càmbar doo ko jéem a waaye li gën a metti mooy nax gi ñu nax te nangu ko ñun dafa àgg léegi ba ci danga dégg taalibe ci boppam buy wax walla sëriñ sax boo xam ne nii da koy dégg mu yëkkati kàddu bokk na ci la muy wax wane ne léegi nit ñi dañoo yeewu baat boobu lu ñuy jëfandikoo la mu bari lool léegi wane ne nit ñi kat yeewu nañ léegi loolu nag boo ko waxee day mel ne yow dangaa ngaa jàpp ne sunu maam yi nga xam ne ñoom dañoo nangu woon a dégg ndigal te di ko topp daawuñ càmbar daawuñ conditionné day mel ne dangaa ngaa jàpp ne ñooñu bañ daan jëfe ndigal ñoom seen xel mu manqué ak seen ñàkk mat moo tax ñu ko daan jëfe bu fekkee da ngaa jàpp ne kon nit ñi dañoo yeewu léegi moo tax jëfeetu tu ngi te loolu muy baat bu siiw boo xam ne taalibe yi dañ koy wax sëriñ si di ko wax te bu ñu xoolee dëgg-dëgg sunu maam yi nga xam ne ni ñoom dañoo tënku woon ci ndigal ak jëfe ko seen xel mu mat ak seen ñor moo leen mayoon ñu dem ba xam ne loolu mënta ñàkk ndax dañoo dem ba gis ne dox boo mënta gis mbooloo moo gis ñu mën di dox il faut que ñu am njiit te njiit loo te gis nag bu fekkee kenn du ko topp njiit loolu dootul am njariñ kon njiit balaa nekk njiit day digle ba noppi ña muy digal nangoo la muy digle te bu loolu amut mbooloo mi duñ mën a dox te bu buñ doxee te amuñ njiit te njiit la ko toppee mbooloo mën a mën a dox kon ñoom yeewu gu ñu yeewu woon ak xam gu ñu xamoon àdduna moo taxoon ñu xam ne njiit kenn lay doon te njiit dañ koy déggal di ko topp léeg-léeg ñu nax ñu ci ne ndigal ci boppam jamono moo ko wees ñu wan leen la fi ñu toll ci wàllum civilisation ak progression maanaam dem nañoo dem ba léegi daal ndigal kon jëfe gi wax dëgg yàlla jamono weesu na ko ba tax lenn ci taalibe yi lenn ci murid yi di tànn ndigal yi léegi di ko ràññee am ndigal yoo xam ne moom nañ naan moom bu duggee dañ ko jëfe ak ndigal yoo xam ne nii dañuy may seen bopp ne war nañ caa mën a xoolaat ak yu mel noonu léeg nga sax nga dégg ko domaine sàngam nag moom du ma ci déglu ndigalul kenn sama ndigalu bopp rek laa ciy déglu wala boog sama xelum bopp laa ciy demee te fekk na loolu wuute naag li tënk ak taalibe ndax ku nekk xam na ne principe bi nekk ci taalibe mooy laa tafalu shay'an bi gayri idn bu leen def dara lu teguwul ci ndigal baatub dara nag foofu ci làkku arab dañ ko fee def mu nekk baat boo xam ne nii tënkuñ ko maanaam définiruñ ko indéfini la loolu nag li muy tekki mooy kon lépp day dugg ci biir lépp lu nit kiy def taalibe di ko def daf caa war a déglu ndigal kon amoo sañ-sañu ne domaine sàngam nag moom duma ci déglu kenn sama bopp laa ciy déglu te loolu bari na loo koy dégg léegi ku naan la man day sëñ bi boo digalee lu jëm ci nangam ak nangam danaa ko def waaye nag bu jëmee ci nangam ak nangam moom loola dama ciy xoolaat sama bopp loolu itam jàpp guñ jàpp ne kon jamono am na lu mu la ci ndigal moo koy indi sunu borom dafa ci alxuraan ne na ngeen topp yàlla topp yonentam te topp seeni kilifa te su ngeen amee lenn loo xam ne da ngeen jaam xel ñaar ngeen delloo ko ci yàlla ak yonent ak seeni kilifa te luñ leen wax ngeen jëfe loola. kon loolu ndigal amoo sañ-sañu di ko xaaj naan domaine bii ak bële falaa koy yemale domaine bii duma ko ci boole bokk na tam ci liy fondation yoonu tasawu mooy ngirum mi nga xam moom la Serigne Touba di jàng leen te yar ci mag ñi magi taalibe yépp te ñun ñu bari ci ñu nit ñu ciy dund bokk na ci sart yi balaa nga cee mën a dugg il faut nga jaayante akub sëriñ jaayante ne bu ñu ko waxee mooy da ngay ñëw ne ko jébbal naa sama bopp yàlla ànd ak yow loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi kon loolu sart la ci nga nekkub taalibe ci murit gi kon nag boo xasee jaayanteeku sëriñ nag ndigal la la sëriñ bi jox amatoo sañ-sañu di ko càmbar wala nga di ko conditionné ndax sëriñ buñ dul topp amul maanaa waaye itam sëriñ boo xam du joxe ndigal amul maanaa kon loolu itam dafa nag sàtt ci yoon wi am na nag ay teqale yu tuuti ci diggante ñaari baat muy amru ak idnu ñaari baati arab lañ waaye yépp ci wolof bu ñu koy firi ñun ñaare ndigal lañ koy firee waaye baatu ndigal moo gën a dëppook ñun li baatu isn moo gën a dëppoog ñun li ñuy wax ndax ndigal li ñuy wax mooy loo xam ne nii ki koy joxe day xool rek situation bi mu toll lu mu laaj mu joxe ndigal loolee waaye nag keneen du ci déglu keneen ku dul sunu borom subhanahu maa taala du ci xool diw ak diw waaye day xool diggam ak sunu borom xool it situation bi ñu toll lam laaj mu joxe ci ndigal ndigal loolee muy joxe bu xasee tudd idn kam jëm ci moom te mu war a jëm ci moom amul sañ-sañu di ko càmbar wala di ci am yu muy xel ñaar loolu moo koy wóotale ak amru ci arab amru na ci arab ndigal lay firi waaye ndigal lay doon loo xam ne nii boo ca gisee lu la neexul am nga sañ-sañu ñëw fa nga ko war a jooytoo nga jooytu ko fa bu fekkee lu ñu war a dellu gannaaw la ñu dellu gannaaw bu dee izn nag bu dee ndigal ci izn nag moom jëfe rek moo ci war a topp moo tax baatu izn ci tasawuf moo ëpp ñuy jëfandikoo ci baatu amru wala boog moo gën a nekk lu officiel ci baatu am amru donte ñaari baat nag ñoo bokk lu ñuy firi ci wolof kon ku nekk mën ngaa laaj lu tax ñu gis ne jëfe ndigal daa mel ne nam amee woon solo <clears throat> da koo ameetul noona maanaam nam nam dëgëre woon daa dëgëreetul noona manis naa laaj itam ne jëli ndigal ndax xam ngeen ne ndigal ak jëli ndigal dañoo bo dañoo jege te bokkuñ ñu baree bare tam jëli ndigal léegi dañ ko sàggane lool lu tax loolu am ndax kon sabab day dellu ci taalibe yi wala day dellu ci sëriñ si ndax ñàkkul am mbir yoo xam ne nii mi ngi fi ñu koy gis te mii néewal doole jëfe ndigal ndax loolu te amul yooyu nag yenn la ci laaj yoo xam ne nii kuy waxtaane ndigal ak lu ci jëm war nga koo mën a laaj buñ ko laaj itam jéem koo gëstul ay tont tont yoo xam ne nii ku ko dégg xay nag boo dee jëfandikoo sa xel dong daan la mën a convaincre ndax la ngay dégg dañ ko teg ci xel moo xam ne nii mu leer naa ñu lay doon ndax day mbir yoo xam ne nii buñ ci tontuwul tontu leer mën naa jur ëllëg loo xam ne nii du neex ñëpp kon nag li mu laaj mooy ku nekk ci ñun nga xoolaat sa bopp moo xam ñi nga xam ne ay taalibe lañ wala ñi nga xam ne ay sëriñ lañ ku nekk nga xoolaat situation bi ñu toll nii ba ndigal mel ne dafa gën a néew doole ci sa fam tolloon bu njëkk ndax yow amoo ci responsabilité yow mi sëriñ bi wala yow mii taalibe bi ñu jéem koo teg ci taabal bi tam discuter ko waxtaan ci bu ñuy waxtaanee ndigal nag mooy avant ñuy jël ndigal li avant ndigal di jot di jóg. kon li ñuy wax ci ndigal lépp mu ngi jëm ci njëkk ñu koy joxe waaye suñ ko xasee joxe mu jógee fa mu war a jógee moom amul analyse amul càmbar amul conditionné dañ koy jëfe rek kon liñ ciy wax mooy balaa ndigal laa jóg li ñuy wax lépp foofu la jëm waaye su xasee jóg moom amatul luñ ciy wax kon war nañ koo mën a waxtaane balaa muy jóg lépp luy xeeti parparloo ak yu mel noonu nag ñu génne ko ci ngir tënk ko nag ci lu tënk daañu waxtaan ndigal ci boppam ban solo la ak mooy lan danañ joxe tamit yenn ndigal yoo xam ne nii ñu baree bari dañ ko sàggane léegi te moo ne mooy laytaay ndigal yi nga xam jàpp nañu moom mooy ndigal ñu bari di ci danañ tuddi ay jafe-jafe yoo xam ne nii dana taxaw ci kanam kii bëgg a jëfi ndigal moom it ñu leeral ko ba ku nekk xam noo koy mën a moytoo suñ noppee tuuti tuuti ci yenn yi nga xam jàpp nañ ne buñ ko defee ndigal mën naa dellu fa mu nekkoon ci biir yoonu murit ak ci yeneen ngir yi nga xam ne ngir tasawuf la ci ndigal kon ndigal dafa am lu ñu ndigal lu matale ndigal am xaas ndigal lu matale ak ndigal loo xam ne dafañ koo jagleel noonu la ko ñuy bés gëstu ci wàllu tasawuf noonu lañ koy jàngalee ñaari ndigal yu yëpp nag ñoom dañoo gis ne mooy fondation bi nga xam ne nii jaamu yàlla gu mënti doon ci kaw ndigal loolu ci lañ koy tabax mu door a mën a nekk jaamu yàlla gu ñu nangu kenn ci saxaaba yi mas naa ñëw ci xaajarul aswad mooy doj wi nekk ci biir kaaba gi mu tiim ko ne ko xam naa ne aw doj dong nga su ma gis doon yonent bi di la foon duma ma la fóon bu mukk kon nga gis ne kooka bu doon jëfandikoo xelam dong du foon xajarul aswad waaye gis na ne ndigal la moo tax mu di ko jëfandikoo moo tax jàmm yàlla léeg-léegi xel am na ci solo lool waaye nag am na foo xam boo fa àggee pas-pas moo fay dox pas-pas nga jiital cim xel moo tax léeg-léegi jaam du am nu muy tànn ca na muy jaamoo yàlla doo ko tànnal sa waaye dañ lay wax ne nii ak nii nga koy def bépp yëngutu boo yëngutu tam yaa ngi koy yëngutu teg ko ci nela suñu borom waxee ne na nga yëngutoo noona moo tax lettre bi wala boog message bi nga xam ne nii moo jóge ci yàlla jëm ci mbindeef yi yonent bi mu ngi ko ko jottali ci ndigalu suñu borom wa daaxañan ilallaahi bi idnihi mooy yàlla suñu borom moo ko digal ne ko demel jottali jaam ni sama lettre bi nga xam moom laa leen yónni ci ñoom moo tax jëf jooju ndigal la waaye nag jëfe gi ngay jëfee ndigali jaamu yàlla ci boppam maanaam la la nekk ci biir lettre bi na koy jëfee loolu yaa ngi koy teg ci ndigalul yonent bi kon su yonent salaa ci ndigalu sunu borom lay jottalee waaye nag sariya bi mu indi guy jëf yi ci nekk boo koy jëfee yaa ngi koy teg ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci misaal dafa ne julli leen comme ni ngeen ma gis ma koy jullee kon kenn amul sañ-sañu wut sa façon julli bopp ak noo koy jullee ci misaal xel mën na laa jox ne la julli gi lu rakkaa yi gën a bari mu gën a baax waaye dañ naa wax ne la julli gi nag dañ ko wutal ay limu rakka ci misaal xër bu la yóbboon ci ngeen naa julli baar fukki rakka boobaa julli gi dootu baax ndax dangaa wuuteeg ndigal li nga xam ne nii moom lay digal nga jullee noonu kon jaamu yàlla gu mënti doon boo ko tegul ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaamu yàlla googee dootu nekk jaamu yàlla bu ñu mën a nangu sëriñ bi ñuy toppit ndigal li muy joxe mooy jokkaleb taalibe ak ndigal li nga xam mooy ndigalul yonent bi mooy ne sëriñ bi day dox sa diggante ak moo tax boo jëfee ndigal li nga xam ne nii moom la la sëriñ bi jox day mel ne dangaa jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi mu lay digal ngay def ndax ku nekk xam na ne ñoom ñi nga xam ñoo samp ngirum tasaw ndigal yi ñu jëfe yëpp ñu ngi koy jëlee ci yonent salaa directement comme ni nga gisee wirdul maaxuus ni ko sëñ bi jàngalee kon ñoom da ciy gis ne ci ngirum tasaw sëriñ bi mooy taxaw taxawaayu yonent bi ci biir ñam ñam ñam nekk ci misaal tey ñun bu doon mur yi dañ naan sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci suñu biir moo taxaw taxawaayu yonent bi salaa salaam moo ñuy jokkaleeg yonent bi kon jëfe gi ñu jëfe ndigalam moo ñuy jokkaleeg jëfe ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bépp ndigal boo xam ne nii sëriñ mi ngi koy digle ci mbirum tasawuf mi ngi koy sukkandikoo ci ndigalul yonente bi sallallahu alayhi ñu jàpp nag ne bu loolu amutoon ñoom ñiy jàngale tasawuf dañuy gëm ne kon jamono ji nekk day mel ne kon yónni bi yónent day day war ndax jamono ji nekk day war ku jokkale nit ñi ak njàngale bi suñu borom subhanahu wa taala kon sëriñ si loolu xeet yónent bi sallallahu moo am xeet wu mel noonu ñoo xam ne ni ñoo fi nekk di fi wuutu yenente bi di jottali ay ndigal yoo xam boo ko jëfandikoo dangay àgg ci ndigal yonent bi ñu gis nag ne ndigal loolu nga xam ne nii mooy ndigalu sëriñ bi moo lay saafara sa jàngoroy xol yi ne ci biir rag-rag xol yi ne ci biir doomu ci biirub taalibe jëfe ndigalu sëriñam moo koy saafara jëfe ndigalu sëriñ tam moo tax nga mën a ñam cafkak jege sunu borom subhanahu wa taala jëfe ndigal moo la koy taxam moo la koy may jëfe ndigalu sa sëriñ tam moo lay dimbale ci booy dox dox bi ngay jëm mel ne da ngay yéeg jëm ci kaw moo lay yóbbu ba nga mën a àgg ci pays sunu borom subhanahu wa taala ba mën a dékku leer yi sunu borom di tëggu ab jaamam bàgg foofu ci kem fi mu àgg loolu tam jëfe ndigal moo la koy may moo tax ngirum tasawuf dañuy wax ne kenn waru cee sóobu te amoo ci ndigal waroo ca jëfe lenn tam lu mu mënti doon ak lu mu tuuti te amoo ci ndigal ci jëfe gi ndax ndigal li moo lay garanteel lu mel noonu moo tax ñu ne képp koo xam ne kon da dem ba weddi ndigal yi nga xam ne nii moom lañ jagleel kilifa yi ko war a jege yi ko war a joxe kon dañ lay xañ nga dugg ci kuréel yi nga xam ñoo am ak jagle ndax ndigal moo leen koy jox donte nag sa xam-xam lu mu bari bari ci wàllu zahir ci diine loo ci xam lu mu bari bari su fekkente ne dangaa weddi ndigal yooyu nga xam ne nii mooy jóge ci kilifa yi diine yi yu mag yi ci ngànk ko gërëm tasaw di la jokkal yonent boo ko weddee day mel ne da ngay da ngay sa bopp dugg ci kuréel bu mel noonu ndigal yooyu nag ñaari xaaj ma si na koo xaaj ñaari xaaj mu ñu jox la ndigal nga def ko jëfe ko loolu moom kenn si sàkku waaye itam lépp looy def danga ngaa war a jëli ndigal lépp looy def danga ngaa war a jëli ndigal balaa nga koo def kon taalibe amul sañ-sañ ab sëriñ joxe ndigal mu cay teg baat waaye itam amul sañ-sañ ci boppam doxal lenn te demul laaj ci ndigal bañ jox ko ndigal mu door koo jëfe loolu ku xam murit gi danga xam ne mag ñi noonu lañ daan dundi bu njëkk ci misaal xale bu judd ci kër yow yaay baayam waaye doo may sa bopp mukk ne naa ko joxu tur da ngay dem sa sëriñ bi nga dékk say loxo ne ko gan am na ci kër gi moom ngay bàyyi bu ñëwee mooy tànn tur bi ku mu koy tudde ak lam cee def lépp moom nga koy bàyyee bu njëkk ku nekk xam na ne oto sax boo ko masaan am wala fas muy lu bees balaa nga cee war danga koy yóbbu sëñ bi ñaan ci jox la ndigal nga door na nga koy yéeg nga yéeg mbay mii ñuy def ku nekk gis na ba tàyyi sayu mbool sayu mbool ba léegi am na kilifa diine yoo xam ne ñu ko fa yóbbu ku masaan bay ba mu ñor doo ko ñemee ñam mukk lu dul da dagg jot sëriñ bi ba sëñ bi jox la ndigal nga door caa ñemee xew loolu mooy jëli ndigal kon bu ci xeeb dara lu man tuuti tuuti nit amul sañ-sañu jëfandikoo ko te jëliwu ci ndigal kon ñaari pàcc la mooy sëñ bi digle gis ne lii war nañ koo def mu joxe ci ndigal ak nga gis ne am nga loo bëgg a def balaa nga koo def nga dem jëli ci ndigal kon ñaari xaaj yooyu moom lañuy ñuy xaaj ndigal am nag ay ndigal yoo xam ne nii léeg-léeg dañ koy sàggane ñu baree bari ndax bu ñu waxtaanee ndigal ñun dañuy jàpp rek ne mooy ne sëñ bi nee na nañ def nangam bu ñu def nangam yooyu rek lañ koy jàpp maanaam mooy côté social moom lañ gën a xam ci misaal ndigal yi tollu jamono yi lu mel ne sëñ baa ngi aaye xeesal sëñ baa ngi digle nangam ak nangam yooyu waaye dafa am ay ndigal gën naa yaatu loolu am na ay ndigal yoo xam ne nii war nañ koy fàttali bu baax a baax ndax yoonu murit ndigal yooyu moo koy laytaay te taalibe bu nekk it war a bàyyi xel ci ne ni nga war a jëfe ndigal yépp ndigal yooye noonu nga ko war a jëfe te léegi nag ñu bari ñun day mel ne ndigal yooyu dañ koo war a dañ koo xaw a sàggane wala sax dañ koo xaw a néewal doole danañ ci tudd yenn nag bu ko defee mu yóbbaale yi ci des lu mel ne ndigalul jox leen yii ci alxuraanul karim ci di ko jàng ak di ko jàngale ak di fonk ñu koy jàng ak fañ koy jànge sëñ bi joxe ci ndigal yu baree bari wax ne bépp taalibe boo xam ne nii ci man nga aju na nga saxal di jàng alxuraanul karim mii ngeen ci téere waxaat tamit fu na ngeen di taxoog jàng alxuraan guddeeg bëccëg ci kem na ngeen ko mane moo xam benn isib la moo xam ñaari isib moo xam wenn saar moo xam lu mënti doon waaye daal na nga ko saxal guddeeg bëccëg di ko jàng daal ciy teg ne am na ñoo xam ne nii dañoo sóobu ci ngirum tasawuf waaye nag daa mel ne dañuy wax ne àgg nañ ci mbir yi foo xam ne nii lañ yor moo gën a kawe alxuraan ci ñoom sëñ bi teg ci ne loolu wa daaka dalilu dalilu maanaam daal ay nar la ak caaxaan loolu sëñ boo ko bind daal ne xadd xarrahum iblis nee na ñooñu iblis moo leen war moo leen won loolu kon ndigal la taalibe bu nekk ndigal loolu noonu nga war a jàppe alxuraanul karim loolu nag boo ko comparé léeg-léeg li ngay dégg ci yenn jataay ci yenn barab yi ñu ko fay wax di ko di ko jëmee ci alxuraan muy kay ay kàddu yoo xam ne nii wuute la lool ak ni sëñ bi déglee nu jàppe ko alxuraan kon ndigal la loo xam ne nii moom bokk na ci ndigal yi nga xam nañ ko sàggan ay teggin sëñ bi dafa digle ne murit bi fu mën di nekk na ay teggin yoo xam ne nii moom lañ gërëm teggin yooyu ku nekk ñun war ngaa xoolaat sa bopp fan nga ci toll yow ndax teggin yooyu mi ngi ci nooy toogee sab sëriñ nooy toogeeg sa kilifa nooy waxeek moom noo koy xoole yooyu ay teggin la yoo xam ne ni ku nekk war na noo xool ñun fi ñu ci toll léegi te moo ne ndigal la loo xam ne ni taalib bu nekk daf koo war a jëfe benn ci lettre yi sëñ bindoon mu ñëw ci dénkaan yi mbind daf caa bind wax ne gannaaw bu ma leen nuyoo maa ngi leen di digal ragal yàlla te xam ne yàlla kuy tedd moo la gën a tedd maa ngi leen di digal ngeen di xeñtu sunna si yonent bi salaa salaam te di ko jëfe maa ngi leen di digal ngeen nangoo jàng tey jàngale te yàlla tax maa ngi leen di dénk ngeen topp ndigal yi tey moytu tere yi maa ngi leen di dénk ngeen bari soli barab yi nga xam ne nii ay barabu moyu la ak barabu caaxaan daal ne maa ngi leen di dénk di leen digal ngeen di jëfee li ngeen xam te li ngeen di xam li ngeen di jëf ngeen di ko teg ci xam te ànd ak ay teggin mu ne ñett yooyu mooy was was yi nga xam ne nii mooy was cin li nga xam ne nii mooy cinul pajuk aaju kon ay teggin ndigal la loo xam taalibe bu nekk war na koo bàyyi xel ci jamono ji nag ak saa su nekk jëfe gi lu war la te teggin nag lu yaatu la waxin ci la bokk jëfin ci la bokk doxin ci la bokk xoolin ci la bokk ak yeneen ak yeneen suñu digg ak jaamu yàlla yi muy julleeg woro yi ci aju moom it ndigal moo ci ñëw ne sëriñ bi dafa wax ne taalibe bu manti doon lépp loo ti nekk ba waxtu woo xam ne nii dañ koo war a jaamu yàlla te ko ci waxtu bu agsee lépp loon def da ko war a bàyyi ba def jaamu yàlla googee ba nopp moo tax dégg ngeen ko ci ndigal yi sëñ bi yeesal jamono yi mooy lépp lu ngeen def ba déggug nodd na ngeen bàyyi la ngeen doon def bu kenn yëngutóoti bu kenn waxati bañ joxe farata ja ba nopp loolut ndigal la ku nekk war a xool nag ndigal loolu ñun fan lañ ci tool ak nun koy jëfe wutub sëriñ ndigal la nga dem jaayante mën dañu ñàkk ci tasawuf waxoon nañ ko léegi képp ku bëgg a nekkub taalibe il faut nga am sëriñ sëriñ bi da ngay dem jaayanteeg moom sëriñ bi ko bindal boppam ne ku bëgg a àgg ci yàlla da ngay ngoy da ngay ngoy ci sunna seen sallam waaye nga jaayanteeg koo xam ne nii day topp yàlla te du mooy ci zahir du mooy ci baatin nga bàyyee ko sa bopp beneen ndigal a ngi nii wax boo xam ne itam sëñ bi daf ñoo ko digal ñu war koo jëfee mooy ne bala ngaa ànd ak kenn ku mënti doon na nga ko ba noppi ba xam mooy kan nga door a ànd ak moom daal képp koo xam ni testé nga gis ne maanaam xelam matul wala boog borom xemmemteef yu bari la nee na booy tànn koy àndal bul ànd ak kooka loola ñu war koo càmbaraat xool ba xam ndax fuñ ci toll ñun ndax loo xëy dañ ñëw ci kanam bari na ñoo xam ne nii mbooloo yi ñuy dugg dañuy dugg ba ci biir ba noppi door a gis la ca nekk ba noppi nag génn jafe leen loolu xëy na dañ ci ñëw ci kanam kon yooyu yenn la ci digal yi nga xam ne nii bu ko nit ki defee daanaka moo koy waajal ba jëfe yeneen ndigal ci des yëpp day yomb ci moom ndax nit ko ko defee day dem ba day àgg ci daraja ju kawe setug biir goo xam ne nii bakkanam ci boppam mooy foñ mooy bañ lépp loo xam ne ni xeet ñaaw def la wala lu ñuy aaye la mu ni ko def ñooñ la sëñ bi wax ci xoqal bu kaaw naan kaanu yaxuduna tarkal wirdiment shibahin min alxalaali min asbaabil musibaat nee na ñooñu dañuy dem ba àgg ci ñoom waxuma la sax jëfee li ñuy aaye waaye di am yoo xam daa dagan ci ñoom ñu mën caa lekk ba suur mën caa naan ba màndi mën caa jëfandikoo nu leen neex waaye duñ ko njëngoo jëfandikoo ndax ragal ne loola ñu ko jëfee da leen dugal ci yeneen yoo xam ne ni musiba lay doon moo tax daawuñ lekk ba suur daawuñ naan ba màndi daawuñ tëdd fu nooy daawuñ yu baree ba dañ ko daan aaye seen bopp ngir jàpp ne yooyu te lew na leen waaye dañ jàpp ne day dox seen digganteeg àgg fi ñu bëgg àgg kon ndigal yooyu ku ko jëfe dalay sellal sellu biir ba sa bakkan ci boppam mooy foñ lépp loo xam ne nii day niroo xeetu lu ñuy aay wala lu ñuy sib wala yu mel noonu ndigal yooyu nag bu ko nit jëfee dafa am meññet moo xam ne nii moom la koy jural njariñ yu baree bari tuddoon nañ ci yenn ci njëlbeen gi mooy ne jaamu yàlla moom mënoo koo def mu wér te dëppalewoo woo ko ci ak ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndigal yooyu itam moo lay ubbil buntub sellal sa bopp ba nga mën a àgg ci kaw moo tax alxuraan waxoon ne yonent bi nag yonent waxoon ci sunu borom waxoon ci alxuraan ne su ngeen bëggee ba su ngeen bëggee yàlla sopp leen da ngeen may topp su ngeen ma toppee yàlla dañ leen sopp fattabi'uuni yuhbibkumullaah moom ba ngeen ma toppee yàlla sopp leen kon loolu ndigal la ku bëgg àgg ci sunu borom subhaanahu wa taala il faut nga koo jëfee ndigal lu mel noonu ndigal loolu itam mooy tax nga àgg ci daraja ju kawe joo xam ne nii da ngay gis lu baree bari te ñi yëg suuf duñ ko mën a gis loolu ndigal moo la koy may sëñ bi dana koy wax ci xoqal bu kaaw mooy yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan mooy da dem ba àgg ci sa xol mooy gis loo xam ne nii nit day xool xool ay bëtam bu baax te moom du ko mën a gis te yow nga toog di ko gis loolu ndigal moo la koy may moo tax sëñ bi bind ci yenn dénkaanam ne jaam bi su fekkee dafa jubli ci boroomam te teg ko ci ndigal ak bàyyi tere nee na su demee ba ci àgg ci sunu borom subhanahu wa taala lépp lu mu bëgg sunu borom daf ko naan jël ko nee na bu àggee sunu borom nag yaa rabbi ana uhibbu kaza damaa bëgg nangam nee yàlla daf ko naan jël ko su fekkee dafa ragal dara danaan yàlla man de nangam yi dama ko ragal yàlla daf ko naan bul tiit ndax mucc nga mucc nga ba noppi ndax man maa bind lépp te lu ma neex mën naa ko caa def kon bul tiit kon digal mooy maye loolu mooy dem ba loo wax yàlla mu defal la ko loo sopp suñu borom defal la ko loo ragal suñu borom dàqal la ko moo suñ bi waxoon ci waxoon ci mbindam ne su ragal yàlla su dee ci yow leneen lu dul yàlla daf lay ragal waaye waxi suma taxaf ilaahaka ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad bu fekkee dëgg la ci yow leneen lu dul yàlla leneen yàlla rek daf lay ragal lu moo tax sëñ bi ne bu fekkee yaa ngi jëfe di bàyyi tere da ngay àgg foo xam boo amee looy tiit sunu borom daf naan la bul tiit ndax mucc nga sëñ bi daal ci teg ne su fekkee la nga bëgg yàlla jox la ko moo gën ci yow yàlla daf la koy jox su fekkee la nga bëgg yàlla jox la ko daa gënul ci yow nee yàlla daf la koy remplacer loo xam ne nii mooy la gën ci yow nee na su fekkee la ngay tiit sunu borom mën naa dindi tiitaange li sa xol ba dootoo ko ragal walla sax la nga doon ragal sunu boroom jëlee ko fa ba dootoo ko gis mu joxe ci misaal ne lu mel ne sawaro Ibrahim sawaro Ibrahim la tax lëkkul Ibrahim ndigal moo tax lakkul Ibrahima waaye ku ne xam ne sawar day lakk kon sunu borom moo fa jawal moo fa jëlee sawara way lakk ba lakkul Ibrahima géej gi Seydina naa duggoon duggante labul la tax mu labul ndigalu sunu borom la mu jëfe moo tax labu ci biir géej sëñ bi moo bind loolu ñun nag ñu teg ci ne mën naa mën nañ cee dégg itam ne julli gi sëñ bi julli woon ci géej gi ku nekk xam na ne julli ci géej gi la tax labul ndigal moo tax labul def gi mu ko def ci kaw ndigal moo tax mu julli ba noppi mucc ci kon ndigal lépp looy def te teg ko ci ndigal sunu borom moo la ci taawul boppam moo tax sëñ bindaar wax ne topp gi ngay topp ci ndigal ci ngay mucce waaye nag ñàkk ngay ñàkk topp ndigal moo lay dugal ci ak tooñ te tooñ moo lay dugal ci alkan kon jëfe ndigal am na njariñ yu baree bari yoo xam ne nii nit ki mën na ko caa jëfe mën na ko cee jële danañu dimbale nag ñu mën a jëfe ndigal li may wax it maa ngi koy wax njëkk ndigal liy jóg moo tax ñuy wax waaye ndigal bu xasee jóg jëfee rek moo fa sas waaye nag balaa ndigal a jóg bokk na ci li ñu mën a dimbale ba ndigal jógee ñu mën koo jëfe mooy ñuy sàmmonteeg digle loo xam ne nii nit ñi daañ ko mën a jëfe xoolit maanaam contexte bi maanaam xoolit situation bi fi mu toll ak lim laaj bu ndigal lay jóg ñu bàyyi walla xel situation bi ñu toll ndax bu yàgg dañoo bindoon ne soo bëggee loo wax nit ñi def ko del wax nit ñi luñ mën loolu sàrt la ci moo tax suñu borom sax dafa ci alxuraan ne ragal leen yàlla waaye na ragal leen yàlla seen kem kàttan fattaqullaa mastataatum kon loolu dana dimbale nit ñi ci jëfee ndigal mooy balaa ndigal lee jóg ka ko war a yëkkati bu ca bàyyee xel contexte bi ñuy dund bàyyi ca xel man-manu nit ñi ak fi ñu toll dana tax ndigal la jëfe gi gën a yomb waaye itam bokk na ci lañ koy lañ lañ ci lañu ciy dimbali mooy ki koy digle ànd ak ñun ca ndigal la ñu koy jëfe maanaam mu jox ñu ca royteef boo ñu ne dem leen julli ji na fekk bu ñëwee ci jàkka ji fekk la nga ànd ak ñun julli ci misaal bokk na itam ndigal ku nekk xam na ne sëñ bi sëñ na koo joxe te du te ko indil benn benn leeral du ci teg benn leeral ndigal daal a ngi nii jëfe leen waaye nag bokk na ci li ci dimbalee mooy ndigal li ñuy jox nga leeral ñu ñàkk ngay jëfee ban loraange la ñuy jural ndax loolu alxuraan sax dafa jëfandikoo méthode boobu bu lay aaye dara bu la ko aayee ba noppi danaan la boo ko defee kat nangam ji moo ci topp bu lay digal dara danaan la boo ko digee boo ko defee noppi kat nangam ji moo ci topp fajtanibu la'allakum tuflihun ci misaal wala mu ne illaa tafaalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ak yu mel noonu kon suñu borom bu ko neexoon tey mu ne def leen rek wala bu leen def ban ñoo wax lenn nag lan bu ñu defee lan moo ciy fekk bu ñu deful lan moo ciy fekk waaye nag ngir yombalal ñu ko ak xemmem loo ñu ko dañuy wax bu ngeen defee ndangam ngeen ciy jële bu ngeen deful nangam moo leen ciy fekk bokk na ci loraange yi nga xam ne nii nag mën naa dal ci ñàkk jëfe ndigal mooy fitna fitna bari na lu muy judd ci biir mbooloo la koy jur mooy mbooloo ma dañoo nanguwut a jëfe ndigal moo tax fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azab aw yusi azabun alim wala boog mbugal mu métti ñëw dal ci seen kaw jël dal ci kaw ña nga xam ne nii ñoo nag ñàkk nangoo jëfe ndigal moo tax sëñ bind ci am bindam ne képp koo xam ne nii dangaa jubloo jaamu yàlla te tegoo ko ci ndigal li jóge ci seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doo ci jële lu dul rëccu te bu ëllëgee sa place mooy doon sawara te bu ëllëgee itam foo teg sa tànk day tarxiis kon baraana koo gis mu tarxiis la ko tarxiis loo mooy ñàkk a jëfe ndigal kon yooyu dana ñu dimbale ñu leeral nit ñi seen bopp ñàkk a jëfe ndigal lan la leen di jural ak ñàkk a jëli ndigal lan la leen di jural ci li nga xam dañ koy dund nag man koo tudd mu leer nañ waxoon naa ko ci jëlbeen gi ne bu njëkkoon ci misaal bu fekkee danga nga amuk njaboot da dem ci sa sëriñ nga ne ko kër ga dey ku mat a dem kër am na fa wala nga ne kër ga dey ku mat a sapp kër am na fa loolu nga koy wax génn ci sëñ bi mooy dem ba xool ne diw ak diw war nañoo ànd mu jël leen boole leen bés bu ñu demee àndee tam ba njaboot juddu ca tam da ngay delluwaat sëñ bi ne ko gën am na ci kër gi bu gën amee moom mooy ñëwal boppam toog tur wañ ko war a tudd sax moom moo koy joxe lañ ko war a def lépp nañ ko war a dox rek moo ci joxe ndigal daal ñu defe loolu nag ñu bari léegi dañ koy teggi ñu bàyyi ko xel taalibe yi koy dégg bàyyi ko xel léegi ñu baree bari dañuy dox seen seen njaboot dañuy dox seen ngoro ba ngoro gi sotti ñëw sëñ bi ne ko mayel boobu daanaka jërutu ñu en ñëw sëñ bi ndax maanaam da léegi sax jëlatoo ndigal da ngay jox sëñ bi ndigal da ngay gis koo xam ne nii day am doom ci kër gi maanaam day am gone day denc sëriñam ne ko sëñ bi damaa amum tudd bi sàngam day bàyyi ba sëñ bi ñëw toog ci fauteuil bi mu ñëw ci nopp bi ne ko sëñ bi diw laa koy tudde boobu moon ngaa bañ sëñ bi ndax yaa ngi ko woo ba noppi ñëw di ko jox ndigal loolu li muy jur mooy maanaam sëy yu baree bari du taxaw day tas maanaam tas yomb ci lool maanaam barke yu barke jafe ci lool njaboot gi dëgër bopp yomb ci lool ndax liñ jàngoon ne laa tafaalu shay'an bi ghayri idni fal idnu sartun fi qabuli shay loolu gis nga ko gis nga daamari léegi bu njëkk waxoon naa ko bala ngaa war oto bu bees dangay dem sa sëriñ mu ñaan ba noppi ne la yéegal nga door a yéeg ñaare mucc rek moo ci am waaye léegi da ngay gis accident yu bari am na yeneen sabab nag dëgg la am na yeneen sabab waaye itam yu mel noonu daf ciy jur ndax ñàkk barke daf ciy feeñ loolu itam ñu bàyyi la ko xel maanaam taalibe yi ñu xam ne ñàkk a jëfe ndigal li ak ñàkk a jëli ndigal bari na loraange yoo xam ne daf koy jur ci biir gër yi ndax liggéey lu mu ñëw lu mu génn barke ba dafay jiw te barke lu mu jóg dootu am solo njaboot bu ci barke jógee dootu la amal njariñ ab sëy bu ca barke amul du am njariñ ab liggéey bu ci barke amul du am njariñ lépp lu mën di doon bu ca barke amul du am njariñ bokk na ci lim ñi jural itam ñàkk a ndigal mooy ndaw yu baree bari léegi dañoo mel ni dañoo gëlëm xam ngeen ne ñu baree bari ci ndaw ji ku ci juddu toll ci wutub sëriñ ci misaal sa wayjur dey ànd ak yow ba ci kam yaakaar moom mu ne la kii laa la jébbal nga war koo topp lu mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ndaw ñu bare bari nag dañuy def loolu ba pare gis benn waay boo xam ne nii defar na ay yëfam ba muy mel xat rafet lool xëcc leen ñu dem dugg ca loolu bàyyi ndigal lañu bàyyi fañ leen digaloon ñu dem dugg foofa fekk na kooku lam defar ba mu rafet muy melxat mooy li sëñ bi wax sëñ bind ci masalik nee na bul jàpp ne loo seen muy melax rek muy melxat xat wurus la bul jàpp ne loo seen mu rek aw biskit la boo ko defee léeg-léeg nag nga dugal si gémmiñ loo xam aw xeer doon ndaw ñu baree bari nag bu leen defalee lu mel noonu ba pare dañ ko fay bàyyi dem dugg ci lay melxat bu ko defee dañuy dugg ca biir nag ba mu njàgg ñu bëgg a génn dootuñ mën a génn ñu daal di gëlëmte ñëwal leen misaal mi ñu la ciy jox mooy ci misaal loolu dafay mel ne bool bool bi nga yor balaa nga cee def ñam wu sell da ngaa war a raxas bool bi ba mu set bu fekkee da ngaa jël ñam wu sellu def ko ci bool bu setul ba noppi tiim koy lekk bu yàggee danga dem ba mu yàgg nga gis tilim tilim mën ngaa bëgg bàyyi te doo doo mën a bàyyi mën ngaa bëgg a wàcc te doo mën a wàcc la nga lekkoon bu ko defee nag jaaxale dikkal la loolu moo dal ndaw yu baree bari fañ leen deeloon seeni jëwriñ ne fa ñu ne fa kupp dem topp leneen lañ topp nag dañuy dugg ba ci biir ñu gis loo xam ne nii dañuy jàpp ne du woon lii te bëgg a génn dootuñu mën a génn bu ko defee tagatem bi ñëwal leen fi wax nañ nag ne ak jur bu ñu leen dee sàmm maanaam jur ga ba bukki bay fàdd mooy ka bedd maanaam béy wu ci bedd ku dugg ci mbooy gi moom bukki bi fàdd loolu rek mooy mooy masal mi kon yoon wi ñu tëral bi bu ko mooy keneen fàdd la bu ko defee nag coono daal lay jikkal loolu ñàkk topp ndigal daf koy jur ci biir njaboot kon loolu di ko leeral nit ñi bañ xam ne ndigal boo ko jafee lii la lay jariñ ñàkk gee jëfe lii la wàññi dana tax bu ndigal jógee ñëpp sawar ci jëfe yi donte nag du lu war ab sëriñ sëriñ moom gis ne lii moom la war a joxe ndigal mu joxe ko mooy li ko war waaye nag leeral gi dana nu jàppale ñun ñi ko war a jafe bañ mën koo jëfe kon am na jafe-jafe yoo xam ne nii léeg-léegi dana gàllankoor ba jëfe ndigal di jafe ci ñenn ñi moom it danañ ci tudd yu ndaw ci misaal léegi xam ngeen ne ñiy joxe ndigal dafa bari waxoon nañ ci njëlbeen waxtaanu ne mbooloo mu nekk njiit kenn lay doon waaye ay njiit mënuñu jiite menn mbooloo mbooloo mu nekk njiit kenn lay doon moo tax sëñ bi lu njàngale mu leer naa ñi lay jàng fi ne boo xoolal yoonu murit sëñ bi ni mu ko tabaxee maanaam li ñuy wax néegu ñax maanaam xëy na bari na daarul moxtu waaye këru murit goo dem ñaar da nga fekk li ñuy kaas carré maanaam néegu ñax yooyu noonu ma bindoo noonu la sëñ bi tabaxee yoonu murit suuf gi day yaatu waaye loo gën di jëm kaw muy gën di xat ci misaal boo ci suuf gi day yaatu waaye loo gën di jëm kaw mu gën di xat boo demee ba ca kaw tam néegu ñax ci ñun li ñu xam benn put lay am mooy yoonu murit benn sëriñ moo ci nekk mooy Sëriñ Tuubaa ñi ci des ay jëwriñ lañ jëwriñ nag ñooy wàcce ci suuf suuf gi nag mooy mboolem taalibe yi mu yaatu moo tax noonu lay ndigal day jógee ci kaw di wàcc bu fekkee dañoo dem nag ba ku nekk di joxe ndigal ndigal jógeetul ci put bi di wàcc boobaa de néewal doole ndigal foofu nag ci lañ toll jamono ji léegi da ngay gis ki war a joxe ndigal joxe ndigal ba noppi leneen jóge ndigal jóge ci biir njaboot gi mel ne daa safaanoog ndigal li jóge woon ci kilifa gi loolu nag day néewal doole ndigal bari gi itam da koy néewal doole ndax xam nga li ñuy wax euh, alhard wa talab te mooy demander ak offre maanaam marchandise mu mën di doon la koy jox valeur mooy na muy ñëwee ci marché bi marchandise mu mën di doon bu raaree rek am prix bu baree prix bi daanu moom loolu ñëpp xam nañ ko or wala jama bokk ci marchandise yi gën a seer lu tax mu seer mooy gis ko moo jafe waaye tey soo ko jëloon saam ko teb ko ci lay dem ca marché ba naan aywa or da ngay gis ko leen xanaa sëñ bi amoo ñaari saam juróom prix bi dee daal daan kon lu bari rek lu bari rek valeur wàññ wàññi moo tax ndigal yi bu baree ñu koy joxe valeur ndigal day wàññi loolu nag bokk na ci li xew ci jamono ji ñu toll nii. ku nekk di joxe ndigal léegi ñu ko war ñu waroon jëfe ndigal sax dañuy joxe ndigal loolu kon défilé boo xam ne nii mi ngi ci kanam ñi ñi koy joxe ñi joxe ndigal nu war a xool ba ndigal li ñu ràbb ko noo xam ne nii benn lay doon jóge ci kaw di wàcc nag jëwri ñi di ko jàllale ci taalibe yi léeg-léeg it ñu koy joxe ci loo xam ne nii da ko dul soxlawoo xam ngeen ne ndigal balaa jóg day ñor xomm boo de ba ñu delloo ci taarix dañuy gis ne yonent bi salaa salaam maanaam daana soxla suñu borom wàcce alxuraan mu toog di ko xaar diir bu yàgg waaye suñu borom du ko du ko wàcc day bàyyi ba mu ñor xom mu door ko mu door ko wàcc moo tax am na mbir yoo xam ne nii dañ ciy bàyyi nit ñi ñu ciy xalaat te ndigal nag mën na caa ba jóg ndax ndax laaju ko dëgg-dëgg fi la laaju ko am na ci yoo xam ne nii itam waxtaane ko moo gën joxe ci ndigal loolu tam ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi ci xel loolu itam dafa xaw a bari ci jamono ji ñu toll léegi ndax dafay am yoo xam ne nii boo joxee ndigal nit ñi jëfe ko mën naa indi na ci biir mbooloo moo tax am na yoo xam ne nii waxtaane ko moo gën di ca joxe ndigal loolu itam di ko bàyyi xel balaa ndigal lee jóg dana ci am solo kon di ko génn ci loo xam ne nii eh, maanaam xëy na soxlawu ko lool lool dana tax ndigal li xiimam dafay wàññiku jëfe gi tam dafay gën a jafe jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ngir jàllale ndigal li ci taalibe yi moom it dana ci feeñ li ñuy te ay réseaux sociaux yi maanaam yii nga gis ni yu bees yi léeg-léegi jaarale ci ndigal yi day wàññi xii day wàññi valeur ndigal li ndax xam ngeen ne réseaux sociaux yi commentaire yi day bari buñ ci jaaralee ndigal yi da gis ko ci commentaire koo xam mën naa am sax du jullit ab yéefar la ndigal jóg mu teg ci wax ju kii maanaam waaye dañuy wax ne seytaane waxul dëgg waaye yàq na mu bu ko defee yow boo dégloo ndigale ba noppi lire commentaire bi léeg-léeg yi dafay jax-jaxal sam xel ndax ndax ndax day bàyyi sa xel dara mën naa ci joxe misaal loo xam ne nii gis naa ko ci benn commentaire xam ngeen ne léeg-léeg dañu naan euh, dañuy ne am na dëkk yoo xam dañ fay aaye ci misaal ku fa ubbi école tubaab ñu di ko aaye ci misaal bis gis naa ko ci benn benn commentaire ne gis ngeen maanaam ñi leen di aaye njàngum tubaab seen doom yi ñooy jël paie ci concours général bu Sénégal ndax ndax la nga def fi dëgg ku ñu koo xam ne nii santam ci kilifa yi ñu xam ci yoon wi lay bokk ñu di ko décorer ndax njàmbaare gum njàmbaare ci njàng moomu bu ko defee nag gars yi di ci bind commentaire nee nag gis ngeen ko de mbir maa ngi nii gars yi di leen aayam njàng seen doom yi nii ak nii la ñeen def loolu buñ ci dee jaarale ndigal yi commentaire yooyu mën naa am waxul waaye nag day yàq xelum ki ki koy lii kon ndigal na ko daan nañ ko daan defee bu njëkk nga xam ne nii bu jógee ci jëwriñ lay dem jëwriñ dem ci jëwriñam jëwriñ dem ci jëwriñ ñu ko jokkalante du soxla sax ñu jëfandikoo rajo duñ jëfandikoo rajo duñ jëfandikoo yéene jëwriñ ñoo ko jokkalante ba àgg ci baas bi baas bi jëfe ko mu jeex xam ngeen ne ndigal yu baree bari ba ko sëñ bi joxe noonu la demee woon kilifa yi fi jiitu yëpp it noonu la seen ndigal daan demee kon jumtukaay yi ñu koy jàllalee danay néewal ndigal léeg-léegi xiimam ki koy joxe ci boppam tam jëwriñ ji ci boppam moom it léeg-léegi dana ci feeñ ndax ki ngay jox ndigal moom it danay xool ba xam ndax li nga koy digal yaa ngi koy def wala déet yaa ngi koy def wala déet bu fekkee danga ne taalibe joxe leen na fekk nga jiitu ci ci misaal ku nekk xam ne kilifa bu ñuy santaane bi liggéey dañuy jël seen alal def ci ba noppi woo taalibe yi ne ñëw leen def ci loolu loolu loolu dana tax taalibe sawar ci jëfe ndigal waaye nag léeg-léeg itam loolu day xaw a am kiimaan moo tax misaal mi ci wolof mooy digle sangu tàngaay ci doo sangu loolu tam léeg-léeg bu fi amee ci jawriñ dana tax ndigal la muy joxe jafe gi dafay xaw a jafe taxawaayu lenn ci intellectuel yi maanaam ñi nga xam dañoo jëfandikoo dañuy jàmp ne ñoom seen xel rek moom la war a jëfandikoo wala ci lenn njiit yi nga xam njiit politique lañ ay way politique yi ñoom seen taxawaay ci ndigal bokk na ci liy xeex dëgëraayu ndigal mooy di la la domaine bii waroo cee déglu ndigalul kenn dañ cee war a jëfandikoo sa xel loolu itam day bokk na ci lii néewal doole ndigal ci misaal barki démb rek xam ngeen ne am na ku ñu jàppoon mu ne moom day xiifal boppam mu def grève de la faim ab sëriñam yónnee fa ne ko na ko bàyyi mu bàyyi ko gars yi bind ne kon li mu doon woote daal nekkul dëgg ci moom ndax bu doon dëgg ci moom ndigal du ko tee jëfe li mu xalaat loolu maanaam gisin la woo xam ne nii mi ngi tasaaroo ci biir mbooloo mi te ñi koy tasaare mooy ñi nga xam ne ni seen intérêt nekkul ci nit ñi tënku ci ndigal loolu itam taalibe yi bàyyi ko xel moo di ne ñoom dañoo gëm ne mbooloo boo ko bëggee boo leen bëggee nguuru seen kaw waxuma yilif de waaye boo bëggee nguuru seen kaw da leen di tàqal boo leen tàqalee ba ku nekk gis boppam nag ku nekk di ko jëfandikoo bar ci te du ko sañ a bañ loolu itam taalibe yi bari di ko bàyyi xel bokk na ci yi néewal doole ndigal léeg-léeg itam bokk na ci liy néewal doole ndigal muy defi ci kanam mooy léeg-léegi muy lënkaloog intérêt personnel maanaam ñuy joxe ndigal ndigal li jóg ba noppi ñu gis ne intérêt personnel daf koo lal loolu dem nit ñi boobaa dañuy bàyyi xel ca la ngay wax ndigal yu bare bari yu jóg nag ci jëm ci wàllum politique boo gisee muy néew doole dañuy gis ne intérêt daf ca feeñ fés bu baax a baax moo koy waral waaye su fekkente loolu lalu ko moom ñaari jafe gi dana yomb kon nag bu ñu bëggee défi yooyu yëpp nag jafe-jafe yooyu yëpp bu ñu ko bëggee maanaam mën a mën a mën a mën a neutraliser bu ñu ko bëggee mën a maanaam ba duñu gàllankoor am na yoo xam ne nii dana nu dimbale ci loolu mooy ndigal li ñu delloo ko ci njàngaleem sëñ mooy ñu fexe ba delluwaat ci njàngaleem sëñ bi ndigal liy jóg lu nekk ñu mën koo wutal cëslaay ci njàngaleem sëñ te lépp luy maanaam gisiinu personel ñu génn ko ci dana tax ndigal li bu jógee jëfe gi yomb ci taalibe tout tànk itam ñu teel leen a yar ci topp ndigal njëkk ñuy jokkoo ñeneen maanaam namtal leen ci ndigal njëkk ñuy jokkaloo ak ñeneen ñoo xam ne ni mën naa am duñ jëfe ndigal bokk na ci tam tu tànk yi dem ñiy ànd ak ñoom ci jëfe ndigal loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax maanaam nit ki bu fekkente ne yow ci misaal sa kër sëriñ boo bëggee bu ëllëgee sa njaboot boo fi bàyyi ko ñu topp sëriñ ba nga leen topp la woon da fexe ba bu ñu nekkee tu tànk ngay ànd ak ñoom di dem ci sëñ bu sëñ bi wootee nga ànd ak ñoom dem bu dee tool nga ànd ak ñoom dem ci tool ya bu dee màggal la nga ànd ak ñoom dem ci màggal ga bu ko defee bu ñu màggee bis boo leen wanee gannaaw jëfe loolu day yomb ñoom waaye nag mag ñu baree bari seenu njaboot ñoom fañ demoon ñoom seenu njaboot sax daanaka xamuñ bu baax ndax bu ñu fay dem duñu ànd ak ñoom bu ñuy jëfe ndigal du ñu ànd ak ñoom du ñu ca boole bu ñu màggee nag ñoom pour ñu def foofa day jafe ñoom moo tax ànd ak tuttànk yi ci liggéey yi dafa am solo ndax dañuy màgg di ko gis bis boo leen wanee gannaaw ñoom jëfe gi day yomb ñoom lool moo tax kon loolu tam teel cee tàmbal ndaw ñi dana tax jëfe ndigal li ñu mën koo gën a nàmpatal ci ñoom teel leen cee dugal di ci ànd ak ñoom àgg na sax ba ci addiya yi ñu joxe xale lu tuuti tuuti danga koo war a teel a tàmmal ne ko sëñ bi bu laajee danga war a joxe xam ngeen am na mbooloo yoo xam ne nii ay tutàng dañ ciy bokk ñoom amaguñ xaalis bi ñu joxe léeg-léeg sax dañ lay sas ne la boo demee na ngeen di benn nen nenu ganaar boo dee ngeen di ci misaal rek. andilum nen bu ko defee xale bi day xam ne nen boobu la toll mu gëstu ko ba indi ko bu ëllëgee bu ñu ko sasee 5000 da ko day yomb ci moom bu ñu ko sasee milliard bu demee ba am ko day yomb ci moom loolu loolu dañ koy tàmmal nit mu teel koo tàmm bu ko bu ci màggee nag jafe gi day yomb ci moom te benn jafe loolu daal kon suñ suñ moodu xam naa mooy liñ ñu bëggoon a tënk mu nekk daal tomb boo xam ne nii gis nañ ne waxtaane ko xëy na am na solo ndax ponk la ci ponk ngirum tasawuf te mooy jëfe ndigal bàyyi tere bu xasee génn ci tasawuf rek tasawuf amatul mu doon loo xam ne nit gis nañ ne ay kàddoo ngi jóg yu baree bari di woote jëme ci ne kon ndigal nag dañ koo war a xoolaat wala boog sax dañ ko war a teg fële ndax amatul place ci dundin loolu nag xëy na ña koy wax léeg-léeg ñu layal ko lay woo xam ne ni dana naqare wetti ndax intérêt yu bari yi ci dugg ak bari itam ñi koy joxe te xay na waruñ koo joxe waaye daal lu mu ci mën doon taalibe yi nañ bàyyi xel ci ne ndigal lu jóg te jóge fa mu war a jóge warteef la ci taalibe bu nekk nga jëfe ko moo tax ndigal yi nga xam ne nii moo mujj a jóg te sax Mouhamadul Mountakha yeesal ko mu jëm ci dëkk ba te Touba ak bépp dëkk boo xam ne nii ca na yi doxe na ngay doxe loola war nañ cee gën a bàyyi xel bu baax a baax taalibe bàyyi xel ci ne jëfe gi moo leen war te mooy tax tam seenu taalibe dëggu ci ñoom ñu tëjee ko rek baamu la ñu waxoon ci départ mooy ne li ñu wax fii lépp nag mi ngi jëm ci njëkk ndigal liy jóg xay na dañ koy wax ngir ñi war a joxe ndigal bu ñu ko déggee xay na dana leen dimbali ñoom ba buñ ñuy jox ndigal ñun buñ ko bàyyee xel jëfe gi dana yomb ci ñun loolu rek a tax ñu di ko wax waaye nag ndigal li bu xasee jóg moom bi amatul sañ-sañ di ko càmbar wala nga di ko conditionné wala nga def yi mel noonu waaye da koy jëfandikoo donte sax gis nga ne yow neexul ci yow da koy jëfandikoo loolu la suñ bind wax ne tarkul inxiraadi mutlaqan mooy ne bu ndigal jógee bul ci am looy gaaral sëñ bi àgg na ci ne bu fekkee ndigal daa jóg yow sa xol ci biir waxoo ko sax waaye yaa ngi sa biiru xol ne luy ñox ñoxi ci jëfe ndigal loolu rek xamal ne sa taalibe des na kon ñoo ngi sant ñëpp di jéglu wasalaamaaleykum wa rahmatullah